nataal juróom ñu jóge ci maam Ibrahima doon giir bu màgg ñu tudd leen giiru Israël. ci giir googu am ku ci tudd Musaa bëgg yàlla te di ko topp yàlla ne Musaa yéegal ci kaw tund wi yàlla ëmb tund wi ak niir wu sew ndaxte kenn waru ko woon a gis musa rekk moo mënoon a jege yàlla ñépp ñi des ci giiru Israël mënuñu woon a ñëw waruñu woon sax laal catu tund wi yàlla wax ak musa ci kaw tund wi mu jox ko ndigalam yépp musaa waroon na xamal yégle yi ko yàlla jox askan wi askan wi waroon nañu déggal yàlla tobañ a def lu jubadi